réew gal si suñu biir xel jullit ànd ak catholique ci jàmm làppe réew mi réew jamu la réew mi dara taxu ko yegg seen sama réew jolofu ngi dara gënu ko ñun fii lañ juddoo màgg dox country couleuru flag bi doon tree kola rek jàmm sax Don't stress ñun dañ free wert mbokk xonq dënk mbokk ndab ñu bokk song mbay ak géej ñu fonk ndëkk ndoo ba jur na mbokk yeah bukkunte na mën a xalam ñaani bañ la ca na xaram ñul ni daram demb gaañ na réewu bamb réewu baay réewu lamb bay namm jàmm yeemu mbaay foore kàddu ca weewu bay one nation one go one people one faith jëli àll cosaan yene one fes xam na yoonu yokkute tew bi so go duñu des fiis meskis ñu teg seen na la koy jóg ca kaw a kaw ñu teewal Sénégal réew mi dara taxu ko yegg seen sama mission aw oh, bii di ñoo ngi saluer bépp région Dakar Diourbel Fatick Kolda Kaolack Tambacounda Saint-Louis Thiès Matam Ziguinchor WhatsApp Louga waaye mën a ne ci di West African soldier love and respect ci sa màggal wat gaal yi ko wat xaal la kat aada bro fii la cosaan nañu tette waaru mam gaal seen la ñu fii la ma gën a neex mairie dañuy takku dóori waar comme ay soldat xaariñu kenn ci lenn dañuy matal war na leen yàlla sàmm sàmm bépp doomu bi sama yéene rëy na loolu god rek mën yu su baay pen Ketchup. Yo dio ya critiqué Mamba Bouchao. Yo. Yo. Mamba Oleg son copain là. Ça va Ça va bien. Merci. Maa ngi nii cool. Ak dëkk ba nag. Dëkk baa ngi noonu. Coupe d'Afrique dañ doon reetaan rek. Noonu la gars yi dañuy dem si si ñaxee di naan fii Mamba Bouchao. Non non non bu ko woon de moom sama gars la de. Moom sama gars. Ça va Sir, sir, sir, wako Junku, je vais une main de s'il